tey nag sama gars yi maa ngi ki nga xam ne. mooy DJ Yves. mooy DJ Yves moom ni doom nday lamp. mag lamp démb la. moo waral ñu naan tey cordon la tàmbalee ci parcelle bu ñu dëkk. walaay wax bu ne xam fi nga jëm ko gën a wóor. la ki mooy Lamp Fall taal bi Serigne Fallou Galas bàyyi benn borom ni rek sàmm gi sañ ci neen kuréel mu génn góor gu ah. dul ah. eh kon Lamp tey moo la fekkee fii sa place. waaw. ànd ak ceg-ceg bi seen leen mën na ko freneel. dëgg di tey démb la. lu la. te Modou dafa doon loo xam ne lu ñu bokk la. waaw te ni ma mel ci moom yow noonu nga mel ci moom wala nu ko raw nga mel ko ci Modou. maa la raw. que yow am nga ci kàddu da nga ciy def ci boos te doo ci boole wax. moo waral ma ne leen wéy waa Pikine. waaw dëkk la. te loolu dëgg la te Modou mbër la te mbër mu rëy la moo mën moo xarañ. moo dégg garañ moo am salañ salañ ba nga ko seexal nga ne ngarañ moo waral ma ne leen lu mu bëree rek ma freestyle ko defar ko ci tisat ak i photo ak naan fan sa yi nooto naan leen mi fandal la cosaanu nootoo ak tay wa te duñu tey la ñu gën a gëm ci moom la ñuy xam man ko takaatal sa ngemb booy mbir mi ci gaal seen Modou Lo fii ci biir géew moom la ñuy jeew moo du tuus ñu koy xoppum soow mu doonum coow man ko bëre am licence de référence la bale sa fas ba raw say ba cat kambareen xus ba yof yaa fa boof ni sumi la chapeau yi grand bi din jàmmalaay jili bay nor faar soo pim daw génne drapeau yi man ko du nga xar ko ñaari yoon ama fa a ah, waxuma la ñaareel bala jub la nga jox Gris Bordeaux nga raxas noonu nga jaaree Grand Yoff fekk ko Paul Maurice adresse ko moo di premier yaari or fii yaa dem nga caarooy géej naan géej jàkkaarloo Issa woon ko ne yaa di guy dubales ñëw da nga ko naxoon ko yaa ko sutum les

dafa daw dafa rasu leer na ñëpp war na Sénégal war nga képp moo doo mënee fépp man bëri am technique am galaat xarañ loolu ba dee ma ne ragal du jéggi croisement 22 bu ñu ko seqee ci géew daa fekk ma reen moo waral ma leen lu yendu Pikine fanaan sama poos amaa lu doon wax bu teeloon gis Modou Lo du ko jaral moom ciy def taw ma ne ko bis buñ ko seqee bu ñu tegee karkat deux bi di nga daw te say nopp di leen riir may waxaan mu ne lan gintee cere fàllaay Pikine moom lay reeree ma ne ko defal ndànk ama bési góor a koy bay jigéen a koy soq mooñ ko def ko cere gintee cere fàllaay Pikine du ko réer la centre Pikine dafay dee Pikine fande Sénégal war jël képp gis loowul Pape Sarr doon dëkkee bay mu yóbbu ko Ardo mu leer nañ mu des kan booy ñaa mu ñëw nag ne moom doomu géwél la booy ñaa ñëw nag ne doomu géwél la booy ñaa ñëw nag ne moom doomu géwél la ne moo ñu mën moo bëre dàq xeex ëpp doole mbooloo ne ko ah yaa mën yaa dàq a bëre dàq xeex ëpp doole baal ba jour si booy yaa ñëwaat ne lu mu guddi guddi guddi ak lu mu lëndëm lëndëm bukki for bay mu ne ko dafal ndànk mën a waaxu bu ne xam fi nga jëm ko gën a wóor te cell boo gis muy gum borom la tey jii le premier janvier muy jour de l'an lu mu guddi guddi guddi wi ak lu mu lëndëm bukki du for bay tey yeeru reeru ngéwél gudu am yoxu bay parce que kenn la ñuy gis gaynde ci àll muy kenn Modou xarañ loo moo waroon mën a Sénégal loo lamb ji loo téléphone sax bu ñu la wooyee boo dëkkul seeran alloo amul loo bu ñu loo boo demee a na jala Pikine toj na Modou Faye maire El Hadj Diouf adjoint maire bu jeex tàkk ay dëkk Daaru Musi amam rek ci doom man la aw ma mag aw ma rak maay taaw ni caat te papa ak ma dégg daaj te budul man ci lu du saf laaj dama ne la ma lay laaj addi sëñ Fallou Galas Baye Mbène borom ndeg saam pour fi sa jënd ndi kuréel mu gindi góor gu doon denc banque lu mu yootu jot ko yàllay karim borom maqaari bar Allah dafa leer Allah ji a man duma pirate da ko ma jëppal te lu ma génnee waxal booy lu bees sax. dégg ko Petit Diop Baye Fall la waxal cas cas cas cas. <laughs> waxal comme Yaay Fall la. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est parti. Il est là, Baba Kampal, Domia Ousmane Sissi Yasner. Il est là, le champion, le roi des arènes. Modou Xarañ Lo. ah borom passé si borom it 10. xel mi dal na de waaw bu sax rek ma kontaan. kon boo mère Gueye maa ngi koy ñaanal yàlla ko yàlla yàlla ko yàlla defal jàmm yàlla na am ndam bu sedd bu incha allah rabbi waaw oh, suñu yaa ngi koy ñaanal mère Gueye ba ndam rek wallahi wallahi ndeysaan dina baax de waaw oh, ndam rek incha allah rabbi ndam rek ndam rek ndam rek incha allah rabbi waaw oh, ndam rek ndam rek ndam rek ndam rek ndam rek waaw ndam rek ndam rek rek dam rek dam rek dam rek dam rek dam rek dam rek dam yaa juba ngi ñaan yaa juba ngi ñaan yaa ja koy ñaanal yaa ja koy ñaanal yaa ja koy ñaanal dam rek dam rek dam rek inshallah dam rek dam rek dam rek dam rek dam rek dam rek dam rek dam rek inshallah dam rek dam rek dam rek amin amin amin allahumma amin allahumma amin amin ya rabbil alamin devant les yeux de papi amin ya rabbil alamin barke waa pays bi barke bu seex ak bindi seex yi amin ndam rek inshallah ndam rek ndam rek